何でここにいるんですか système sanitaire bu paralysé tawat ba tawat ñi tawat ragal dem kër docteur ndax amatul assurance bërëbu fajukaay yu amul jumtukaay ñi lay saytu di lambatu te ñépp xam nañ ni fourchette du tànk ñeex ñàng ak ñàngale suuxe réew mu ndaw amatul yaakaar ba tax di jël gaal gi boroom lijaasa yi ci marché yi jeune diplômé di chômé ku ci pare jàng yaa ngi jaay te du teeñu lay daq di nangu sa njaay ndongo daara baa ngi jooy ngir tumu ranke yi di parparloo ñoom joxeetuñu xibaar yu wér tey wër-wërloo ay journaliste yu foo te duñ àtte mu dëgg ñenn ci artist yi ni pat su réew mi tàkk ñu ni tekk ngir sàmm seeni baat ak seeni pàcc su lépp ne tekk ñu génn ngir bëgg bokk justice bu corrompu yoon bu dëng si ñu waroon doxal yoon ba fuye say droit yóbbu la nungu siin si lu dul yoon ndaw yu fippu ci li leen soxal di xeex seeni àq ki yelleef ba mujjee kaso kaso yi nga sol ba mu fees te ñu ñàkk def gën fa fés mu mel ni amuñu pexe tëj rekk a fi sës dundin bi jafe fa feebar yi bari fa détenu du yuuxu kuy wàllu gune mbiraago yi na def maison des esclaves nuyu naa leen jaam yi workat yi nuyu naa leen yéen ñi bañ seen bopp nuyu naa leen yéen ñi xamul seen njëriñu àdduna nuyu naa leen yéen ñi bañ ku leen wax dëgg nuyu naa leen tukkikat yi nuyu naa leen sacrifier seen live yi nuyu naa leen ñaankat yi nuyu naa leen yalwaankat yi nuyu naa leen ñi matlewul nuyu naa leen jooykat yi mbébétkat yi yooxukat yi te amu leen ku leen taxaw nuyu naa leen nuyu naa leen ku dugg na nga partage ku dugg rek na nga partagé ñu andi suñu dem ci armeel yi am ku ñu jëli ji indi di def waaye du taal ay kilifa diine du taal ay kilifa diine yi ci réew mi nañu daje waxtaan il est grand temps il est grand temps ñu daje concerté xool fan lañuy jàll jàllale mi wax ko politiciens yi ñu jaar ci nit ñi am jàmm mais moo gën ñu bàyyi muy nag royaat di royaat ba àgg foo xam ne dootuñu ko mën a arrêté su boobaa ñoom ëllëg danañ ci am responsabilité yàlla dinañ leen ba réew mi di lakk fan ngeen nekkoon ak lan ngeen doon wax. noonu la kilifa diine di def waaye du taal ay kilifa diine du taal ay kilifa diine yi ci réew mi nañu daje waxtaan. Il est grand temps il est grand temps ñu daje concerté wu xool fan la ñuy jàllale mi wax ko politiciens yi ñu jaar ci nit ñi am jàmm mais moo gën ñu bàyyi muy royaat di royaat ba àgg foo xam ne dootuñu ko mën a arrêté su boobaa ñoom ëllëg danañ ci am responsabilité yàlla danañ leen ba réew mi di lakk fan ngeen nekkoon ak lan ngeen doon wax.

ñi ñu ko yaakaaree mooy kilifa diine yi bu ñu noppi nit ñi kenn du leen dëgg sëñ bi bu ci wax sa yoon nekkul ci loolu sa yoon nekkul ci nit ñi rayante sa yoon nekkul ci ah sa yoon a ngi ci ndax sa njaboota nga ca sa njaboota nga yoon a ngi ci bul wax ci politique waaw politique waaw bu ci wax parce que daan leen wax toujours ni politiciens yëpp a yem sëb bu ñu bojj bu ñu boxam rek boo leen fekkee ca marché ba doo leen xàmmee kon boo ci amee benn téye ko rek te téye sa jàmm mu jeex mu jeex su ko defee dañ ci war di wax ndax mat ñi dañ ci daan wax diggante waa Ndakaarook tubaab yi ca Medina Alaaji Maalik mu ci jóg ay bakkan naroon a tëdd ndakaaru yàqu سيدي حاجي ما يجيك سول تدن نكو لو نيك صاح يوي يونم باسكو موم مرشد لون مصلح لون مرشد لون مصلح لون مو جوك دوخ با دكارو ديغو بوبو تيلين مدينه تيلين لا تودو موكو تودي مدينه تباب ام جامو نجابوت ام جامو موم لولو موم مس دي نيك ميشن suko defé kon nak tay biñu momé suñu bopp jàng li nu yonenti bi jàngal ak limu wax ci jàmm so setti alquran baatu jàmm yàlla répété lako lu upp ñeen fukki yoon bokk ci turum yi jàmm assalam المؤمن المهيمن العزيز الجبار al jabbar waaw suñu réew réew jàmm bëgguñu fa ay buñ ci yar xale yi buñ ci yar mag ñi buñ ci euh, euh, parti politique yi buñ ko fi taal te amoon na kilifa gu baax gu fi nekkoon il faut ñu wax ko ñu souligner ko bi muy dem mu wolu ma ba këram muy Senghor billahi lazi la ilaha illa hu ñuy ñëw tàggu alaaji Abdul Aziz ba muy génn góor gi man Serigne mbay si mii Moustapha Cissé sëñ Mansour ñun ñeenti ñii ñoo ko recevoir ànd ak El Hadj Abdoul ba muy génn góor gi ni ma gunge ko ba ci oto bi ma topp ko ba ci oto bi ma jox ko loxo ni ma déedéet Abdoul Aziz yow dangay ngay bàyyi ba dimanche nga ñëw suma kër kat ci 16 heure ñu waxtaan 16 heures ma dem. il m'a bien reçu yóbbu ma ci kaw indi bibliothèque ubbi bibliothèque bi génne benn brochure dédicacé ko may ma ko laaj ma posé ma ay question ci lislaam naka la l'islam gisee l'authenticité ma wax ko ko ñu waxtaan ci ma ne ko boo jàngee qul ya ayyuhal kafirun moo résumé l'authenticité de l'islam mu dooroon nag waxtaan ak man mu ne maa ngi leen di dénk ak fu ngeen mën a toll na ngeen daw ay ci Sénégal mu ni guerre civile Abdou Aziz su juddoo da dul xam kañ lay jeex man nga xam kañ nga koy commencé mais xamoo kañ lay jeex mu ni ma te li tax muy gaaw kenn ku nekk dañ lay faatal koo xam ni doo ko mën a muy nga ni il faut ma ko mu nekk nag vengeance bu dul jeex vengeance bu dul jeex asalaamaaleykum encore tey fii laa tàmbalee ah, Fat Diop na def maa ngi lay jaar Fat Diop nga ne ma enlève-moi ce drapeau de merde ce drapeau de merde là c'est ça qui fait que tout le monde tu me vois sur les écrans des bu drapeau bi normal rek dootoo ma gisati ci écran yi doo am jotu jotu commenté wasalaam waaw kay. tey nag dama tàmbalee fii xam nga li tama tàmbalee fii tey waa Vatican génn nañ tudd ma tur nag ndax man ku ma duulal rek laa bañ Vatican génn nañ Vatican ñoom li xew ci dëkk bi ay doomam génn nañ ne yëgu ko ay taalibeem génn ne yëgu ko waaye bésu maamam bii du xaar ko ko yégal yëgal na ko waaw wala déet génn leen ngeen xamal ñu ndax yëg na wala yëgut ndax nag Vatican moo yenu woon sunu ñeenti poñit fukk ñeenti poñit te nag olof dafa wax ne dige bor la jullit wax ne ku leb na fay du dëgg Vatican nag fayagul ba léegi waaye li tax ma fël fii tey dama am ben pa bu ma wo ne ma ñun ay kat lañu ju dogu len ta xamna ne sama taw mën na la jur waye xex bi da ngeen ci duggal lu bokku ta lolu ci da fay yakal Ousmane Sonko mm. ta ku bëggal jappalé Ousmane il faut nga respecté tarixa yi waxa waxa wax ba jekal waye am lum ci doli munema sunu mag yi nga xamne ne ñooñu xeexal lislaam ngeen top di leen dinga mané ko comme kan munema serigne touba malik baay ñas baay lay mané ko taxawal taxawal xam nga gor gi yeen. da ngeen meuna topale ta ay trop ci sen tappale te ëpp ñu fulla nak ci sen tappale ni ngeen ñu ëppee fulla moy sen tappale bu ngeen koy def tous les moyens ya sont bons bu laaje nga wax ak nit ci mel ni ku ko bëgg di nga ko def Yeen raw raw kàkkataar yow bo taxawé tay nga ne sa taw mën na maa jur nga taxaw nga ne da ngay xex xex bo xamne bang koy xex bobu juddooguñ tay xex bi nga tuddee ko Ousmane Sonko ba ne ku xex xex bi Ousmane Sonko nga koy ngay yakal déglu ma rek gis nga dëgg tay ki ko porte ci réew mi Ousmane la tudd sante Sonko waaye bu ko Mountakha Mbacké do yen won tay yow di nga taxaw nga ne ma ki pire murit la or que c'est pas le cas deug ma pousse fofu bu ko mbay si masur yen kan won nga ne ma ki ab tiijaan la do ci ànd ak man bu ko may ñas yen won nga ne ma ki ab ñaseen la do ànd ak man parce que deug amul tur amul sant bu fekke ne nak deug ji ñuy xex yéen da ngeen ko bëgg dakantale Ousmane Sonko yow ba ngay xex Ousmane juddoogul ci li nga wax parce que man bo juré dom bu jur kon dom bobu mën na jur Ousmane kon tay bu jamono yi ñu toll nga bëgg a Ousmane xeex bi xeexoo paa bu ñàkk jom nga benn ñaareel ba nga dema seen magi diine yi ñu dugal ci xeex bi moo tax ma indil ko moromam mu wax ko li ñuy xeex ak li ñuy xuloo ak lu tax ngeen bëgg ko Ousmane moo ma indil leen fii ba mu leen di wax ne kilifa diine yi lu fi xew ñooy responsable du sama wax du sama wax de damaa nettali lu ñëpp xam bañ cee naafiq comme yow ni nga naafiqi tey nag am na wax joo ma wax nee nga ma sa kilifa yi la xeexal lislaam nga tuddal ma ci ñeent Serigne Touba Alaaji Malik Baye Niass Baye Laay du ñeent ñan nga ma tuddal mu ne ma waaw est-ce que mën nga maa andil vidéo bu ma leen di ngate mané ma déet walaay xam nga man dama lay di top vidéo bo ma sa def ma ne ko laajuma la lol de may top wala toppoo ma boo ma toppee ñàkk nga jom ndax yaama mak mag jur nga dom ji ma mëna a jur dama la laaj ndax mën nga ma andil vidéo bu ma leen di dii nga té mom lay waxal nak mi ngi ci biir live bi dima xol mi ngi may déglu parce que du ngeen ay nit dama lay tontu bes ni ki tey nag laay commencé di leen diingat ci li nga wax parce que dama len di diingat da nga bëgg takal sama gémmeñ ta takuma ta lekuma legi bayal ma lek ben yon legi premier dingat bi moy ñooñu nga wax ne ñoo la xeexal l'islam dama bëgg nga wax ma ci ñooñu kan la ci nekon nekkoon ceddo ci ñooñu ngay wax non moy premier dingat kan la ci nekon nekkoon ceddo parce que yeen ay tiaxan ngeen di jël gëm ko da ngeen di lijeenti sen togg bo xamne ni jaadu wut yeen wut mana ngeen bëgg ko lek bëgg ko lek lo nit alaaji Malick waay juróom ndax cedd la woon bu dee am na yaa ma mag xettali ma ci ma xam ne moom moo tuubal waay juróom wala li waay juróom xeexutoon xeex na ko Serigne Touba waay juróom ndax cedd la woon maam Mor Sali moom xam naa ne du woon cedd léegi nag ñeneen ñi ba ña sax ñoom seen yooyu wax ma ndax ay cedd lañ ku ci nekk mën naa la indil turam nga ma laaj la ndax ay cedd lañ waaw wala déet ñooñu ñu jur leen ci lislaam ñu yar leen ci l'islam ñu mag bay War ci l'islam yow nga mag solo caaye di xëbar xëbar di di tay la sa àdduna bëgguloo def dara ci diiné ay nit ñew def jiem ba yow tay nga mën ko tudd ay siècle man wu leen waxuma ak ñom ñi may waxal ci kaw aduna fi ñent ñi la wala juroom benn ñi la cerno ma ca kaw ak cerno mi ci suuf ak muntaka mbake mi taxaw nañu jox leen ma seeni ma taxawu ko gor génn taxaw fu dëggu mu woo ko ba mu ñëw ñun ñëpp ñu xam ne nit ki rayut mu taaj ko ne ko mbaa xam nga ne ku rey nit safara nga jëm jël raykat bi ne ko làq naa la ci ginnaaw sëriñ Touba li ma lay wax sosalu ma la dara rek du ma la sosal dara du ma leen sosal dara damay wax rek bu ma waxee nee ma am na wala amut su ma sosee nee ma ku xamadi nga su ma sosut nee ma am na waaye boo ma nee waaye ni ko waxee ma saaga la ndey lu leer la la wax nak parce que man do nek ci galu nafiq beug ma dugal man ci galu nafiq duma ko nang motax ma fële fi tay parce que bëgguñu baye jaan ju luma ma su tok jaan ju luma su tok màgget bu khubidas moy ñew ruh la ci tun ne la li nga jàkkaarloog ñun parce que rew yeen du ngeen ay julit du ngeen ay gor ay jam ngeen ay mbam ngeen parce que rew lu fi tas tarixa moko tas parce que bu murit bi gëmoon na julit la tiijaan bi gëm na julit la laayeen bi gëm na jullit la ñaseen bi gëm na jullit la seeni doom tey duñ leen rey ñu mel ni ay sànqalañ ci mbedd mi kenn ku ci nekk yëgaloo sa yëgaloo ko sa bopp yow mën ngaa toll ni màgget goo xam ne yaa ngi roof say xuur ci caaya ba mu toll nu ko neex xabar xabar rek moom xaw ma ñaata at ngay lagar lagar rek say xuur ñëw tey ñu rey ay xale ci biir réew mi waxoot ki nga xam ne moo taxaw ne Macky Sall say loxo set na xale kenn tukkeetul bi nga faloog léegi muy maayi ñas xalé yi di tukki Antoine John sepp len ci geej gi melni kuy sepp yax ci ndawal taxawoo nga jël numéro Maye Niass mu nekk biir Sénégal nga nekk biir Sénégal nga woo ko la ko jaaxle nañu waxal ci lii parce que Antoine ci yéen lay ñëw defoo loolu muntaka mi ne jox leen ma fukki mabati yeeg ñeent yi tele mu nekk ci biir réew mi nga ne ci biir réew mi lijjanti woo téléphone am pour wax ak moom Maki continue ray nit ñi waaye comme yow du doom boo jur ci sa bu ñu reyee ab jullit sa yoon newu ci tànk rey ñu doom boo jur sa gaño doo ko yëgal sa yaram di nga daw six mille kilomètres pour woo man sa moromi doom téléphone di am loo koy moraliser ci ay lan ay màgget yu waroon a dem retraite toog di nguuru suñu kaw di ñu nax teg seeni lobby ay faramason rek ak bisexuel man li may wax dafa leer de dama leen ne 2019 laa leen ko wax faramason bëggul ku jiitewul mbooloo paa yi yëpp kalaa toog ci jal da ngay baax boo toogee ci jal soppi jikko liy rew sa liy rey saw askan doo ci wax du man maa ko wax ñoom mag yee ko wax kilifa diine ku fi dee am nañ ci part de responsabilité dégg ngeen li ma leen wax paa bi ci duggati sama téléphone di am looy pliqué nag dinaa tas sa po bu ndey lu leer laa leen wax gorota di ci hôpital ñu naan dee naag deewul yéen a ngi ci réew mi muy woote ci seen avenir doom yi ñaar nag dinaa leen ko wax yow gor gi waxna la ko nga deg nang ko jallal say morom ndax ñaari mbira am partage wala netali netali partage la ta xamna ne dul rek ngeen di def lu ngeen gis di ngeen dem duli jiko su ngeen ma dulale di ngeen ma partager na yegg fi ma jëm fi ma bëgg mbon gi nek ci yeen motax yalla waccel len leen malik baay ñas baay ñas baay lay ak kilifa yi ngeen di ndamo waye mbon da tekki wul dara ci yeen yalla ne len xaar len ma lijeenti ma joxat len benen segam bii échoué na leen jox leen kenn koo xam ne day taxaw ci seen dundu di wax ci seen dund am fulla ci seen dund ndax nit balaa jaamu yàlla dund comme jiital naa ay kilifa ñu ñëw yedd leen ci njub terewut góor jigéen am ci réew mi taxul ngeen mën a bokk korite taxul ngeen mën a bokk tabaski taxul ngeen nekk benn jàkk bokk jàkk taxul ngeen mën a taxaw jullindoo waxtu yu juróom taxul ngeen mana a bokk ay waxtu yi ngeen di julli taxul ngeen julli ndoo taxul ngeen waarandoo taxul ngeen gëmante ndoo taxul ngeen nawante bobu rëcc na leen dina leen andil bo xam dundu dund gi ngeen am yeena ko bokk mu taxaw di ma lay lay mané ko sa ñi nga may wax ñi nga may wax né nga ma ressources yi yeena ko gëna soxla ñi day ñent ñi nga ma limal ni man ñi may waxal waxuma ak malik waxuma ak serigne touba waxuma ak baye ñass ñi may waxal ñi ngi ci rew mi ne leng dooni màgget te yappar yappare ñu kaw yëg li ñu li ñu dal te duñ ci wax dañoo bàyyi seen responsabilité à ma façon laa leen koy waxe duma ko waxee seen façon yéen ndax deelewu leen kenn ñuusu leen amu leen naqar man nag damaa amee naqar di ko waxee ci sama façon naqar sama naqar kenn duma ci sexal suukar nii laa leen koy waxee parce que ñoom ñoo fi ne kenn ku si nekk dangaa wax kenn ku ci nekk dangaa taxaw confisqué loo xam ne kenn joxuloo ko nga ne yow alalu mbooloo nga alalu mbooloo nag ay nit mu mënuñu koo dënkaafu toog ci ku ci bëgg lu bon yaa xam demal ak sa lu bon ku ci wuti lu baax wuti lu baax kon xeex bi samay wax bu ko kenn taqale kenn dëgg Ousmane moomu ko daf cee taxaw ñoom buñ ci taxawoon tey ñu ndamoo leen waaye dañ cee taxawul di ñu nax rek lii lay wax ñaar naka am yàlla dimbali na leen jox na leen ay mag yu jiitu ci seen biir dënn yi taxul ngeen jub mu andil leen koo xam ne day taxaw ci mbel yi ñaara ci am mu fekke ko am na ci ndam mu ñàkk ko fekke am na ci ndam yàlla toog ba mu leer ko nitam ku baax kii aajootul mu koy booleek yéen ñu bon ñii mu jël ko ndànk fay ko tiyaaba ne ko def nga sa devoir dox nga sa mission bàyyi maak ñoom ba buggal leen parce que réew yi ñu buggal yépp noonu la wa ilaa yàlla ne ko sonn nga ci lii nga dox yenu nga ci lu nekk ba tey ji yaa tëdd ci hôpital bi yow kese di ko xeexal sa bopp ñuy fen yee yaay naan da ngaa grève de faim te grève de faim da nga leen ne wóoluwuma leen du lekk seen lekk wóolu woon askan wi yaakaaroon ne doo fa tëdd ñaari fan ngeen toog seetaan ko mu toog di ko xeexal boppam yàlla ne ko nag matal nga la nga waxoon bu la askan wi bàyyee nga doyloo yàlla doyloo nga ma tey danaa la fay mu fayee ko yen, njëriñ yeen waye su boba yeen ñep na ngeen wok sen dok te yoxu bu loolu weesoo nga wax ma waxi mbel pa yi nga may wax naan ñoo jagal rew tay bu rew mi jagon kenn duko ko tudde sama bay kenn duma ci tudd kenn dula la ci tudd yow gor gu ñak jom gi taxaw di wax ak man ñom lañ koy dakantal te ñoy genn fëggati seeni tek seeni ses bilim bilim mi ñoo yor teranga ta duñ ci dara tay nak réew mi daa bon mënuñu leen a genné ci lu bon li dé ndax bu baxé ñom la dé kon bu boné faw ñu dugal leen ci fa ñu leen ci dugal ba mu saf saf jambal leen ci ba mu melni buy ak dom ya dox duñ ci sa def ndox nonu lañ leen di jamme ba ñu ñak ba genné ndox muntaqaa may mbay si ak duuduma ca kaw ak cerno mi ci suuf ak cerno mi ca kaw dañ leen ci jàmb ba ñu tak ci rep parce que ñoo na yor nañ ay ñoo ñu nak juroom benn bo len jëlee nga duggal len ci gal yobul len fa pétrole ba nek bir géej bu ñibbisee kenn du nan kenn du lek plateau sombi ndax neer li man mala ko wax parce que rew yeb bu ñu retraité dañuy dem noppal ko jox seeni doom yeen nak mom maget gu retraité ngeen maget gu retraité mom ngeen di nab nabé parce que du ngeen ay nit japp seeni doom ñu len ray ci bir mbedd mi ci mbedd mi ci geej gi ray len duggal len ci ay consulateur ba mu neex len ñu jël len san len ci bir geej ñu len koy wax ngeen bañ ci ubbi seeni nopp ñuy wax ngeen nan waye mën na xam la xew Vatican tay gis nga ko neena jaxet mama ma xew le ñamu seetaanoon genn ñu naan ko waxal yenn suñu mbebet waxum xey suba ne may France nyepis si ñu naan day wax ñew fekk xalé yépp ngank Moussa Fall mu aksi ne Moussa Fall denk na la Touba ku Moussa Fall ray bir Touba mom moy responsable parce que mom mo len ko denk kon ku ray reykatu nit war nañu wax bo deyee fo jëm li la len wax bu dul deug ne len ma du deug ay doomam génn ne yëgu tey moo newaat jaxeet gor a ngi ci kaso xale yaa ngi ci kaso xale yi dee nañ ñu ngi si armeel yi yéen ngeen ne ci réew mi su baaxoon léegi ngeen jagleel ko seen bopp comme bon na nag ngeen làqatu mel yéen raw ay mbonaat yéen yéen raw mbonaat ay doome doome booyi nag yéen lay waxal yéen lay waxal nee naa leen ku amul kilifa jinne doon sa kilifa def leen jëfi jinne amatul génn jàkkaarloog ñoom di xeex groupe bu guerriat cinq dix sept cinq dix sept lépp luy économie na daanu lépp luy économie na daanu lu mu laaj ci xaalis maa ngi ci suuf est-ce que yéen a may dégg gor nag laay joxanteel du ma yuuxu rek mbaam mu jóg songu ma parce que xam naa ne genn wàll gi ay dóorkat lañ ndax dañ du seen jikko nag du loo leen moom waaye dangeen ngeen fekk seen maam yi nampal leen ci ci dóor lañuy dox ndax loxo buy talal, loxo bu koy jox moko upp barke 2019 la len ko wax ngeen di ma saga nday ñeenti pilier yi bu ngeen ko daaneelu du ngeen fi genn songu politique bi du len wañi dara waye li di politique li di tariha li di mbër li di musique tank que ak di bayyi top len du ngeen am jamm ila yow mi lu leer la len wax li moy samay wax ana ana kat yi est ce que nga len ci deg yi ngeen di de ana mbeur yi astafurla way kat la deg ci deg Abraham Pipo da la fi deg bayiwul dara say bu ngeen mere mu mer fuñ joye mu joy, fuñ joge mu jog, ana kilifa diine yi ana ñu ana ñi leen di taxawu ci diine ana ñi leen mëna ñak ba ngeen mëna julli ci jamm ana ñi ngeen mëna duggal ci biir jakk yi ta ndox mu ta bu am ay day du dugg ci biir jakk ana ñu lan lañ leen defal ana ñu ana ñu ana yi ñoo leen rey ñoom ngeen delluwaat dem fekk jiwaat da ngeen di nekk ci seen ñàkk jom mais kenn du ko tudd nañ leen bàyyi ci seen ñàkk jom su ngeen jógee nag loo leen lu nekk wutal ko tur politique ngeen ne li ngeen di def ni politique la jàpp ay doomi jàmbur rey jàpp ay doomi jàmbur tëj kaso jël seeni doom ñii daw Gàmbi nëbb ci seeni doom booy yi nag laa wax école privée yi bu école ubbee école privée bu fi daw te amul ay cocktail monotos ci biir fii élection du fi am réew mi élection mo fi dul toj cott ndayam am lu leer la leen wax nak lu ngeen yor ci meuna defar biro yor nañ lu tuti lu meuna dakar ndayam lu leer lañ leen wax nak wala ngeen def jam rek jarul genn nan cocktail molotov yi café touba lañ ko tuddé touba nak lu leen neex ngeen créer fa ay bob parce que yéen ko bëgg ak ñom mun taxaa taxawee na touba yor ay nervi baay kole xolé ay bob dor ay nit ndox maa mënuñu ci dara ñu nga ne barki de boo politique bir Touba ana Baye fali lu ngeen di wax wa APR lu ngeen di wax bas Abdou Khadar politicien bu mag bi bas Abdou Khadar trier lu ngeen koy wax dem len ngeen songu ko mo fa yónnee parrainage li lijjanti len sen parrainage ba pare comme rew mi ay doom ram-ram rayal ngeen len ba pare jog dox sen bir di lijjanti seen parrainage lijjanti len ba pare ba xol ndax di ngeen dem election gor ngeen fukki at ak juróom laalul dërëm ci impôt fukki at ak juróom paa yi ku fi toog sa moromu paa ngi ci suuf di ñaan nga dee ba mu remplacé la du ngeen ay gor gën leen a gore ak yaakaar ne seen teraanga day dem ndax moom ci dëgg rek moo leen tere wax ci moom moo tax ngeen yeew ko ba mu dëgër lii nag ñett na ko ñëpp dégg nag mu mun taxaa yeew Ousmane Sonko ba mu dëgër jox Macky ne ko rendil na ma ko waxee woon politique bi saay bu tëlee rek tarixa yi sen mission ak France dañ leen di poudre rek waaye luñ fi teg la bu ñuy sàcc suñu alal bala ñuy am consensus ba juboo suñu biir murit tiijaan laayeen ñaseen dina fekk tubaab yi dem loolu lañ takkale woon seeni imam ay galaw moom la seeni sët di doxal amul leneen luñ leen wax ay ruube ku bëgg a saagal ku bëgg a xastel waaye boo dundul rek yaa bëgg lu lay lor ku ma duulal nag laay bañ bu ma kenn duulal nag falaa yem am ay ay jinne ngeen ma duulal daal laay bañ connected na ngeen ma duulal nag lonk leen ma yóbbu leen ma waaye wax leen li ma wax nee leen ma man maa ne maay ñes moo ne Macky sàll say loxo set na ba nga toogee léegi xale yi kenn tukkeetul te ku wax lu dul dëgg am na nu ko olof di tudde benn Muntaxa moo ne Macky Sall li la askan wi tuddé mbon ning ma taxawoo ci sama diiné gi lakna la ci ginnaw Serigne Touba ñu ne ko déet mu wat ñu ne ko déet mu ñew denk Moussa Fall ñu ne ko déet mu genn ne yegul taj gor ne ko ku rey safara nga jëm te ñemewut ta wax ak Macky Sall ñu ne mu koy wax ci suuf moko wax mo diggé fukki pañ ak ci ba kilifa am na bu newoon waxi dembam ak waxi tayam loolu anu duma ci yeggali dara tama yoon newu ci nag mbay si fukki liir ak juróom ñaar dee nañ ci hôpitalam mu ne ubbil l'enquête nga oyofal lanket bi te boo demee ba ca biir nang ci dugal yàllaa ko dogal moo sosal yàlla li ma wax bu amul nee leen ma amul lii laa ne dafa am ku ma ci ne waxe ko nii ak ni nga ko waxe nangam nangam dinaa la saaga ndax yow da ngaa bëgg a nekk def loo nafiq ko nangu ni mu amé la koy waxé après buñ démé yomal xiyam nak su ngeen mënee nafiq ak yalla ba nëbb ko wax leen ko waye archive dina fi tok fi ngeen tek fi ay yonent xalé yi ku judd di nga di nga sa xel dina xalat ta génération bi ñëw ñoy gëna radical ak yeen parce que du ngeen ay nit amu leen xol leer la leen wax nak nee leen ki taxaw ci kaw deug yéen xam nu ngeen ko tudde Ousmane la tudd ak Ibra Jaxate la tudd Fat Kolle la tudd kumba la tudd ak daggin la tudd sama yoon newu ci man ki taxaw ci dëgg kooku laay jàppale bu leen yaboo nag ngeen wutal ko tur yéen a xam mais daal man daal ci dëgg la dëgg laay topp ku ko ci yor ci ñoom nag ma topp la nu ngeen ma tuddee yaa xam yéen a xam waaye dañ xeex waaye xeex bi waroo ci boole ah da ngeen bëgg xeex ci kaw ay fen bu xeex ba sottee ñu jël ko téye ko te ñoom ñoo dox réew mi ñoo dox réew mi jàmm ah ah du fi amee yàgg nañ fi créé ay yoneen jagat jagat nañ fi kaaba def nañ fi lu ne dekkil nañ fi ay néew lu ne def nañ ko fi fen rek fen yoy nak mo fi ñu fi fen amatu fi amati say bu ngeen di fen rek dina am ñu leen di tiñal bu xalé ñewé nak seen xel yi mëna a ñu xam fu dëgg féete ku ma sa gis li ka ma sa gis li ka ma sa gis li kenn du leen ko wax dañ ka def te kenn di ko wax ba ka waxee rek ñu yóbbu kër yaama tax duulal waaw waaw parce que dañ leen gëna ay dinañ ñu rey dinañ ñu nax dinañ ñu jaboliser fexé ba teg ji leen ci kaw deug teg leen ci ay fenn lepp ci lamiñ rek lamiñ du yey morom bi lu ngeen wax sama gémmiñ a ngi lu ngeen ma sosal ma ñew dajji teg fele na leer <coughs> dama nangu kenn di waxal kenn di ma duulal duma ko nangu tay te duma ko nangol kuy duul da ngay duulal ku dee man nak deewaguma dama ne jot di leen xol kuma duulal ma ñew taxaw bala ngeen may duulal naka ngeen may song ci rek la xamne da ngeen may duulal danaa taxaw défendre sama bop ba mu leer bu xalé ñëwé xamne paay la woon ak boy guerre bi dama leen nek kuko bëgg guerre ku ne commencé ko sa biir kër parce que yaay yi ñoo ñu teree dox ci dëgg baay yi téré ñu dox ci dëgg jabar yi téré ñoo dox ci dëgg doomu nday yi téré ñoo dox dox ci dëgg xarit yi téré ñoo dox ci dëgg andando demb yi téré ñoo dox ci dëgg lo nar wax rek ñu ne la déedéet waaw waro ko wax ndax xam nga da ngay dugg ci pass pass waaw da ngay dugg ci pass pass Pas pas yalla bi yéen a ngi dem di laccé say su nek kamil ku ne jéem firil firilu bu jotté ku ne yuhu ko ci kaw yéen gëna reuy lamiñ beuy waye nak sen gunur yi nga xamne amalu ñu ñëriñ àdduna comme doxuñu ci deug nak buggu leen ku len tuddu jamono yi ngeen don japp di dóor ak nangam da ngeen fekk génération bu taxaw di len xaar dinañ di ngeen ko def waye dinañ ko wax par force na leer. man de france dégguma ko sax waye dem comme ñun France moñu coloniser. yaa leen ma tuuti man di yobante nak ba yóbbu ko di tax laay bañ yóbbante laay indi ba nak duma fi nekkati ci ligne bi di fi yag sa gis ni ay magi jëm nekk ci réew mi ñuy ray ay xalé yéen waxu leen ak kat yi yéen ñi ray metti wu leen waye li leen di metti dal moy ñun xalé yi nga xamne ñun ñoy wax Ayakkabımızı gizleyin. Nasıl gizli? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, Sene semanglena smanglena di lena ziarah di lena nyana rek yang nyu yalla defal jama. Ah tay nak dama ñëwoon pour waxtaan ak askan té bugana partout ci mode. Ah ñu jël message ni seriously te tam ñu ciatalé ko. Ah wow because luma fi ñëw wax nak li nga xamné la lolu lañ ma ci te may gërëm suma doom comme nu ma leen ko waxee Macky Sall pour la ñun jola lañ ñun Macky suñ doom la jomi lo te comme nu ko yàlla dee waxe they can plan but Allah is the best of planners lepp li nga xam ne doomi aadama dina ko fexel sa moromi doomi aadama mu doon lu bon xamal ne rek yow sa malaika yëg nañ ko hmm? yow mu ko fexé connected right so yow di nga plan but Ya maa ngi leen yóbbante donc leni ubi ubbi ligne nag. maa ngi nuyu di leen a max value. ñu yàlla defal jàmm tey nak dama ñëwoon pour waxtaan ak askan bi te bugg naa patriote yi ñu ah, jël message bi seriously te tam ñu ko ah wow, because lu ma fi nela wax nag li nga la lañ ma te may gërëm suma doom comme nu ma leen ko waxee Macky Sall pol la ñun jola lañ bu seen bëss ci ñu né askan yi ñu bëddi won bañ leena faalé ñu lañ leen yuuxu ñu ñëw yalwaan askan wi ci leen ba seen deret jeex ñu waccat leen ñu dem suñ paré ñi top askan wi di leen rey Antoine Diome Moussa Fall Macky Sall Farba Ngom Marème Faye Bali Mbacké bala may dé nak dégg na nak ñu naan waaw sëñ bi dafa dem yobalé banana ak pom kan ngeen di buki neena len buki du ray buki du ray buki day xaar nga ray mu ñew top ci di la ba nga mer ñit ñu dem ba ko ndawal serigne ci ay buki lañ état bi bu ñu lay ray bal lañ lay door ci kanamu ñëpp boole koog seen ñak jom ci digg rew mi ñep di xulle naaj bu tang jeer ñu door ci ay xalé bal ngu serigne ci buñ lay ray dañ lay rof pikir ndank di la nga naan déet ñoom bokkuñu ci wax nañu nangam nangam wajaj waj wajaj génn nañ day wax nañ def fekk na duut nañ la pikiru dee bu yàgg dootoo yàggati seen loxo loolu jikkoy sëriñ la buñ lay laaj xaalis dañ lay nax ci alxuraan nax la ci seen bésu maam nax la alaxira gi nga xam ne xamuñu lu fa xew ci lañ lay nax ba muucu sa xaalis policier bi bu la waree laaj xaalis dalay agressé lii moo am ci réew mi ay bukki lañ bëgg fontoo nit ñi fii Cheikh Bara bokk ci ñoom Cheikh Bara bokk ci ñoom bu ma leen waxoon lien ya am diggante Cheikh Bara baali Mbàkke ak sëñ boobu dem seeti seex Bara lu mu bokk ak Bali mbakke borom cheveux co cokk cheveux naturel yi boroom cokk cheveux naturel yi su ma leen ko waxoon ak Bali Mbàkke lan bokk ak Marème lan la nekk ak Marème Faye Sall ak baali Mbàkke lan la ci kër gi ak kan mooy jabaru seex baara ngeen xam ne ñii duñu ay nit ñi gën nañ ci l'islam bu yàgg parce que ni ñuy rayante ak ni ñuy seetaane deret jiy tuuru ak ni ñuy seetaane ñuy tër ay gor seen kanam di rendi ku mënta rendi ñoom ñoo lay rendi ñoom ñoo lay tëralal ne la rendi te duñu feeñ mu jamono yi nag jamono yi nit tors la ñëpp ay feeñ ku ray di nga takk deret ok na leer bu ñu fi du laaj ñun mag suñ doom la mënuñu te comme nu ko day waxee they can plan but Allah is the best of planners lepp li nga xam domi adama dina ko fexel sa moromi domi adama mu don lu bon xamal ne rek yow sa malaika yéeg nañ ko hmm? yow mu ko fexé yalla mu ñu saka mom wax nopi right so yow di nga plan but he is the best of planners kon ba tay rek Macky Sall ah, bugga naa laa edda te sëñ muntaha yow bugga naa laa waxal ngir sëñ Muntaxa man dama am mbetteel bu rëy am naxar goo xam ne xaw ma fu ma koy waxe ngir man fogoon naa ne lépp lu bokk ak sëñ dafa doon bañkat lépp lu bokk ak sëñ dina taxaw farale dëgga ngir si tanki hak bil hak la dox be gene àdduna jël yoni nabil mustafa sallallahu taala alayhi Wasallam way señ muntaha man dama am lu leer te musona la waxal ne lan mo tax yow señ bara mbàkke ñu téye ko waxulo suñ ne yegulo yegulo lolu ay wax la te patriote yi yëpp laa bëgg waxal sénégalais dama ne laajtal leen ma sëñ muntaha jabaram boobu leen ban affaire la am ak mariam fay sala because yëgal nañ ma ne mariam fay sala ak jabari muntaha sëñ muntaha ay xarit lañ ñooy daanu di jóg te lépp li nga xam ne ñu ngi complot against Ousmane Sonko sëñ muntaha, yëg nga ko xam nga ko te dafa am sax yow rôle boo si war play te Sénégal loolu laa leen bëgg a ñëw tegal kama ko yëgal nag seen biir la nekk ne da ko bandum ni ñoom la te lam ma wax dafa leer te musuma fenal Sénégal soo leen fàttale ko bala lii yëpp door musoon naa génn ma ne leen ne am na suma benn doomi pol bu ma tegal ne ma man day Macky foog naa ne nit dina bonde waaye ku bon ni Macky Sall musuma koo gis waaw xalaat leen lu ma leen a wax ni mbokkaam koo xam ne kooku dafa bokk ak moom mbokk dafa xool Macky Sall bem xam ne kii ku soxor la ku bon la te seytaane boo xam ne la la moo nas biir Sénégambia suñ ko toppee si kaw loolu rek dafa taal Sénégambia moo moo tax nag momit mu jël matuayami jël matuwaayam yi pour gis ne lépp li nga xam ne Macky fexe na ko jëmale doomi aadama yi moom su ko yëgee dinañu ko yëgal kon mala dilasanta di la santa yal na la yàlla may wér ak wér lay boo ma ne woon ne Dame Mbodj Ousmane Sonko pap Alé Niang xaw ma ak ñana ñana ñan ñooñu ñëpp la gaay def si benn liste pour rey leen balaa ah gis nañ lépp li nga xam ne waxoon nga ko kon ñu ngi laa gërëm waaw Sénégal yi nii Macky Sall nag lañ ma yegal mooy kam buggoon na use pour mu reylu Ousmane Sonko moo nekkoon colonel Ibrahim Niang colonel Ibrahim Niang boobu lay bañ ko ko waxee moom daf leen woon ne loolu du ko def te du ko defal kenn. ngir moom ku gëm boromam la te aduna jaralu ko ko boor set lu dal kooku ñun ñëpp dégg nañ ko yal na ko yàlla xare àjjana waaw moom de am na janna te ña def naka sudut noonu nañ xam ne ñoom it fii aduna la dinañ dee jàkkaarloog seen borom colonel Ibrahim Niang ak familem ñu ngi leen a ziyaare di leen a jàlle waaw yal na leen yàlla may xoli muñ waaw métti na waaye Macky Sall kulli nafsin saaqatul mawti yow mii sa bés a ngee ñëw de waaw nga xam loolu nag léegi bañ génnee kooku out of the picture dégg nañ ne <clears throat> yëgal nañ ma ne nag léegi moom dañ réalise ne pour waxati nit ne defal ñu lii loolu ah duñ ko duñ ko mun a am ngir médecin buy nangu pour ñu jox la yow dix millions euro wala cent millions euro pour nga reyal leen Ousmane Sonko na la leer yow ak ku munta doon nala leer ne ñàkk nga àdduna ñàkk nga àllaaxira képp kuñ defloo ne la defal ñu lii nga def ko jëlal ñu bakkani doomi Adama nga jël ko ci kaw ne yow da nga liggéeyal nguur wala dañ la ko sant wala président la ko wax te daf la fay xaalis wala da nga ragal yow sa life ma ne nga def lu colonel def moo gën da nga bugg a rey nit nga bugg a ma koo defloo maa bañ génn xolal kaay nga jël ma man reykati nit nga jëlal suma bakken ma dem ajana waaye doo ma doomi adama man ma dem safara yow nga dem safara déedéet bugguma dem safara yow makisal comme que yow nga ne sonko rek nga bugg a rey léegi askan bi dem nañ tollu fi nga xam ne Macky Sall mu ne jaratut sax ñuy ut nit da na gaay jël poson buñ wara war Ousmane Sonko ñu sét ci l'hôpital bam nekk xawma ñu ne dañ ko day sampal ndox xawma ma oxygène xawma ma lan waaye lépp li nga xam dal ñu ko ko sampal si jamono yuñ toluni, ni Macky Sall ñu ne dafa gaay dañ jël poson ñu def ko blende ko si ay bagage bi nga xam yoyu lañu yobu ah si place Usman Ousmane Sonko fam nekk so that docteur bi mom du xam ban mosi si am poison ak ban mo si amut poison su jele ba taxaw sampalal ko ko rek moy ne dinañ ko mëna poison te mom docteur bi sax du xam mom la mo def noonu leen moy ray moy ray Ousmane Sonko te lañ ko nañ ko bëgg ñu lañ waxtaan mooy ne ñoom dañ bugg poison Ousmane Sonko ba pare nag Serigne Muntaha doog a génn si jàkkaarloog askan bi pour xamal nu ñu ne moom day moo wax ak Macky Sall ñaan ko yëgut ko woon du loolu mooy wax ji waaye déedéet yëgut xamutoon ne sax Sonko dañ ko yëgutoon ne sax Sonko dañ ko yëgutoon ne sax Sonko dañoo lifin toj motoom yeeg gase ko loolu yëpp sëñ bi yëgu ko daal yëgu ko waaw waaye nag buñ demee ba poison Sonko si lay soog a génn moom mu toog jàkkaarloog sénégalais pour nax leen gëmloo leen ne waaw moom la sëñ bi ba mu ko yëgee day on a téléphone Macky Sall waxtaan naa moom fu mu toll nii Macky Sall daanaka teg na lépp si suuf. <laughs> baax hmm? na daal waaw ba mu tegee lépp si suuf di sëñ mu taxaa ñëw taxaw gëmloo ñu ne moom la mooy waaja léegi nag dañoo bàyyi sonko mu dellu si kiram <clears throat> su demee nag toog si kiram xam nga sénégalais yéen ñëpp gëm ngeen ne mu taxaa daal ba mu ko yëgee jóg na wax na te mbir mi yëpp sotti na Macky teg na lépp si suuf meaning Macky respecté na sëriñ yi hmm? ba pare sëriñ tam am nañ kàddu te ñoom it bañ yege li nga xam ne jaaduwut seen réew muy xew ñoom dañ jog taxaw wax wax ji ba jamono ñooy that is the impression buñ bugg a joxe waaye mun taxaa ñu ngi laa yégal ne yow bés boo génnee nga wax si Sonko tey pour ñu bàyyi ko mooy ne yow loo leen fas éene pour reylu ko poison ngeen ko ba pare ngeen soog a ko mun a bàyyi loolu mooy deal bi te sa jabar sëñ Muntaxa sa jabar yëg na ko te sa jabar xariti makki ah, Mariam Fay Salala, la meaning yow xam nga lépp li nga xam ne lañ nas moo tax yow sa rôle mooy ne dangaa ñëw nga nga blackmail sénégalais yi gëmloo leen ne yow boo ko yëgee ngir yow yëguloo dooy yëg dara biir Sénégal waaye bu ngaa am sa independence gis nga yow sëñ Muntaxa yal na la sëñ Touba a yal nga yal nga jàkkaarloog sëñ Touba mu ate la yow nga at xoolal yal na yàlla I don't know how to even put this because yo, yo, represent Los seigne touba nañ wax deug mafia nga Kusohor nga tam te da nga gis nga xoli anyan gogu Mola dugal be yo, bañ tiyé seigne bara bugulo yek bugulo ham. te do seigne wax parce bara buzz bam am Lako yala yalla may lamiñ gis nga su waherek. askan bi yépp day muna degu. dina tag yah gibe, nyep ham linga ham ne. mo lola nip du xam ngeen ne du may wax du xam ngeen ne du ma gambien du xam ngeen na ngeen dem duulali ma lu leer laa leen na ngeen ma duulal nag yóbbante la de du may wax nag na leer nit yi di daba waaye yàlla mayu la loolu waaye yow foo toog dem ngeen ba fiil ne yéen da ngeen war jalos biir tuubaa da ngeen war am xol yu bon ba ay Baay Faal ñooy jóg nga leen jox ay commande pour ñuy dem di dóor ay nit subhanallah dëkki sëñ Tuuba la sëñ Tuuba di xeex askan bi jóg tey lam ñaanoon yàlla pour mu dog bu muy jàmbi askan bi tey suñ génération jóg di ko xeex yow nga doon sitam nga toog foofu nga ne loolu day du fi am pour dog bu muy jàmbi ñu won toroxal suma mam kon yow jam nga jam nga bugg a ah kan ñu nekk di jité ngeen ne kooku ngeen bugg a rey waxuma len ko senegal dama len ne France du ñew de dañu ray sonko de de dañu utiliser nit ku ñu nit ñun suñ gouvernement yi suñ askan la gaay di utiliser pour ñooñu rayal len ki nga xamne koku la wax askan bi loolu lañ bëggul mooy ne lan mu ngi ee eh, askan bi he's enlightening the people mu ngi mu ngi génnee bu muy um, like the iron li nga xam ne loolu lañ iroon suñ bët yi pour ñun buñ mus gis buñ musa xam daanaka pexe yi nga xam ne la seen maam yi laloon pour ñun ñun dool ba àdduna tukki ñoom ñu ñuy raw chaque jour ah loolu la Ousmane ñëw rek xotti ko woon askan bi yëpp li nga xam ne lañ xamutoon démba ba pare énee ñu loolu loolu jaral ko mu teg ba ne len ne soo ma buggee ray ray len ma mais man dama wax ngir yalla mako ko lo suma ma nak suma de ah digaale ko suma borom motax Ousmane lepp lam xam mu doon lu bax Sénégal wax na len ko be jeunes yi yëpp be xalé xale yëpp mère yi eewu pa yi eewu Afrique eewu ñëpp eewu wa xool leen de maki sal bena mu ne dafa dem wa bala muy dem dina yobale ki nga xam koku de mooy ñun suñu suñ revolutionary leader yow sëñ Muntaxa nga toog foo toog nga ne da apple play bi so yow da xaar bañ ko poison nga soog a génn ne yow yaa ñaan waaw Sénégal ngeen xamee ko noonu soo leen gisee sëñ taxa mu génn si ne moom dafa wax si yëfi Sonko ngeen gis Macky Sall bàyyi ko kon ngeen xam ne dafa am lu xewa ah, parce que loolu lañ moo wax. te soo leen xoolee ba xool lan mo tax Macky Sall ak nguram xam <laughs> nga ku repa do dee mous man loolu la gis Macky dafa repa te la ko wax yeb déggut because gis nga nit ki yalla su la bugge xalak ni la la dee def dang def dee ne da nga muus fekk muusuloo xol len fan jare sonko ñepp a xam ne dañ ko bugga a rey xam ne dañ ko bugga a faagaagal ñëpp xam ne bi ñepp xam ne dañ ko bugga eliminate from running the presidential elections te lolu ben loi nak nekkul bir Sénégal bi nga xam dina ko mëna téré a ñom mënu ñoo sampa fi ben bill bi nga xam dina ko mëna tek ci kawam wala ci ndodam luy wara tax ñom dinañ mëna utiliser di judiciaire system of Sénégal pour ñu bako té ñom lolu lañ nekk di def loolu lañ bëgga forcer amuñ ko mënuñ ko té ñu ne dañoo forcer def ko dem nañoo dema dema dem nak be every lie bi nga xam lepp lu doon fenn bañ musa tuumal Ousmane Sonko yàlla setal na ko ba mu set right so léegi lan lañ mujjee def kidnap ko yóbbu ko dugal ko si prison ba pare ne ko ne nag non ah defuloo dara de defuloo dara non amuñ benn reason pour ñu arrest la by the way waaye dinañ la fi téye mandat de dépôt seen nonsense yooyu lañ seen stupid French mentality yooyu li nga xam ne yéen fan ngeen musa gis France di def lolé na a def ni te ñoo leen jangal de ñoy seen bay de ñu ngeen gomlé yow Macky Sall fan nga musa gis Macron to rek jël mandat de dépôt tek ko ci doomi Adama biir France tégaluñ dem, wax ma. Ah, Macron ñi mu nekk baayam biir def biir Sénégal dañ laa oo nga ñu la waaw dañoo jël sa jël sa is that law si kaw lan waaye déedéet mandat de dépôt bañ def ni Ousmane Sonko yóbbu ko si kaso ñu ne. diir bu ñoo lal mooy ne benn Marième Faye Sall mu taxaa nga xam loolu lay moo ma sa jabar ah yéen loo leen plan mooy ne Sonko la moo lekka doo leen ko nangu pour jabaram yi ak famille bi ñu indil ko loolu léegi nag moom foo leen ko dugal noonu lépp la moo war a lekk yéen yaa leen ko ko war a jox loolu ban loi moo wax loolu si àdduna Macky Sall yaa ngi dugal sa bopp si loo xam ne dama ne lépp lu jot son yow doo musa tey am jaama yow ak sa family in this world xaw ma ndax comprendre nga la ma la because gis nga gis nga da nga stupid lii mooy di height of stupidity yow li nga xam ne la aduna bi yëpp di moytu lu njiiti aduna bi yëpp di moytu tey in this 24th century nga ne yow yaay def loolu yow da nga assassiner Ousmane Sonko da nga koo because noo ko war a mun a defee mooy ne waaw barikee nga ko ba sonn right si kiram te defu dara nga enu ko nag justify ne affaire yi téléphone la sàcc ay fen yoo xam ne moom si boppam sax jëlu téléphone bi ñëpp xam nañ loolu waaye def ne rek dafa bugga a safe own bodyguard am te bodyguard am bi lu def loolu la war a def kooku liggéeyam lay def c'est security officer lam def noonu la war a def waaye Ousmane Sonko jël ko momal ko bopam. ah ngeen ne haral ñu jaaree ko fi nii ko pour buñ ko indil lekk buñ ko indil ndox buñ ko yow ban loi mo wax so bu bëggutee fay nit ki lan mo tax yow nga ne yow lekk bu mo lekk yow ya ko ko jox sonko dafa nekk ki nga xamne yeen ya. lañ ko fi fii lan la def sax be ngeen ko duggal ci situation bobu la so grève de la faim bi ni ya lañ ko tek ñepp xam nañ de international community bi xam nañ exactly what is happening maki Sall xam nañ sa stratégie da nga aaye famille bi pour ñu indil ko pour yow ak Macky Sall xaw ma Mariam Faye Sall ak jabar yi sëñ taxa ngeen mun a def seen njuuj njaaj posine lekka bi pour Sonko lekk ko wala ngeen posine ndoxam bi pour mu naan ko looloo tax Sonko ne moom lam war a lekk lam war a naan nitam yaa ko ko indil te droit am la I am that right Some minister bi na uh, mu ne Sonko deful dara Because he is yet to be proven guilty on any of your stupid charges right therefore then ngeen ko kidnap ngeen take off fa pour Lolula Lua loolu te loolu aduna bi di seetaan mahamala Lena ma xamal dal Sonko Macky man xamuma xamuma ñeneen de waaye gis nga yow Macky yow ak sa jabar ak sa famille foo leen munta duga si aduna bi ya Antoine Diome Farba Ngom ah all your people yen foo leen munta duga si si ngeen a si ngeen a xam ne aduna ndeke dafa tuti tuutee tuuti tuuti ba yen sax doo leen xam foo leen a duga doo leen xej Sénégal te doo leen xej fenn si aduna man xaw yo ndax yow yaa ngi understand lan nga bugg a def ak lan nga lan lañ laa pousse pour nga def comprendre loolu so da foog ne yow di nga mun a rey Ousmane Sonko nga daw dem toog France wala toogi Dubai wala toogi fan waaye si nga xam ne kon yëpp dëgg la Macky Sall li xew daal ci moment bi ci Macky mooy la Senghor defoon ba créé fi ay rebelle tudde leen ko jiiñ leen ko fal force muy parti MM MFDC livre boobu la Abdou Diouf toog fii France Senghor dundoon ko ànd ak ay sëriñ utiliser utiliser ko si ay ko homme politique Macky ñëw en 21 e siècle bëgg fee dund loolu moom muntaka Mahi ak Mbaye Sy Mansour loolu na ko ñëpp xam ñaar am nag ngeen partagé ma wala ngeen dem duulal ma duul partagé la dem leen ngeen duulal ma ndax xale yépp yëg ne Ousmane Sonko lu ko dal Macky Sall la Mountakha mbay Sy Mansour ak Mayi ñas ak Thierno ma ca kaw ak Thierno mi ci suuf ak Doudou ma ca yoof tarixa yi ñoo song Ousmane ne ko ah ñun kat sañu maam yi lañ fi yàgg berndeel ngor nag buñ ko amoon daañu xam ne at mu jot ñu màggal te réew mi demul fenn at mu jot ñu gam te rew mi demul fenn faf sax heureusement seen ñaan gu metti motax yalla ne len lama len joxon sax faf du ngeen ko jëriñoo seeni morom ñoy ñew Macron 44 ans lire liko fi mamam bi bàyyi di ci dox di len dreej ngeen tek fi li fi seen maam yi bàyyi au lieu ngeen lire ko di ci dox ngeen lire ko di ci nguru lal ko basang teud ci def ko ay njoowaan lol dong moy suñu febar kon du fi tass rek yéen la parce que yéen wara wax auto juroom benn place amna auto 7 place amna auto 8 place amna Yen ñeenti magget yu retraité yi buñ dugen buñ bu ngeen dugon ci jox la wulon ay signature goor jigen dem assemblée bu ngeen naron jam ta doon ay julit yu mat ta nekku len ci ay lobby dox ngeen lolu rew mi am jam ndax kenn ëpp len fi doole waye bu ngeen gëmon ne sen mam yi aljana lañ nek du ngeen ragal dé pour def lool fi nak lay mag yeen kuma duulal nak lay bañ kuma yobbu kër yaama di tax rek lay bañ limay wax li fi xew dong la wax ba ma kenn yóbbu ca maccante ba nak client lañ ñu fanaan jàmm newoon naa du ma wax damay toog def li may def souterrain yàq rek du ngeen dund du ñu dund bu ngeen xewlee ñu piéger oto yi jàmm du am fenn comme ci deret ngeen di dox ngeen am li ngeen bëgg na deret ji gën a bari rek lu deret ji gën a bari comme yéen xale yi ñu rey ci réew mi ci jàmm du seen du seen problème yéen seen xewi maam yi mooy problème nguur problème problème dinañ waye di ngeen lek ba pare te du ngeen tak haram kan di ngeen takk gas na ci kanam tuti ñu andi len ay vidéo xex bi système étape par étape la étape par étape li ngeen téye di ci naxa kan nit ñi ay vidéo am na ci tubaab yi ta ni ngeen ko ni niñ leen ko waxee ba ngeen ragal wax ñun non lañ ko jotté parce que ci njabot gi lañ bok ta bari pexé na lu leer lañ leen wax ndank ndank rek bu démé nak ba suñu xol jeex ba ñu xamné espoir amatul ñu xëpp ci nday ñam li suuf ñëpp salte ñu wane vidéo yëpp ñu xam ne fii liñ fii ne ba amu fi lu leer lañ leen wax ne ñu ngi leen di xaar rek ndànk-ndànk ñu nag yéen